marché bi fii nu ko defal benn li tax ñu koy xeex mooy insécurité xeexunu marché rek jëm turu marché rek ndax buñ doon xeex turu marché duñ ko jox site kon insécurité la ñuy xeex te insécurité bis bu nekk nu gis ko parce que aw nit ñàkk nañ ci seen bakkan fii ba tàyyee nu gis ko nun ñëpp moom xam na ci dara fii benn entrée la am benn entrée bii moom la am en même temps fii dafa nekk ci dafa jege ras bi fii yaa ngi dégg ñu am fii ab déviation boo xam si oto yi jógee Louga ca la ñuy jaare dugg ci dëkk ba oto yi jógee Ndar dañuy continuer oto bii jóg génn dëkk bi day jóge nii tali bi lépp nag mu bëgg fatt fa fépp oto yëpp day ci benn barab loolu mooy cause accident yi néew ñu accident fépp lay am mais am na loo xam si boo amee ci barab day yokk accident